ay ati ati at dañuy ànd ak sëriñ Mor Mbaye Ngiraan mu ànd ak sëriñ Moustapha Sougou Ndiarème ak sëriñ Ibrahima Sougou Ndiarème ak Serigne Moustapha Silla Serigne Babacar Silla ñoom tey ah, ñu fas yéene ñoo waxal bërëb bi li fi jot a xew sëriñ bi ñaata at la fi dund lanax lan ma fi xew ndax bagage yi sëriñ bi lu ci baree bari lépp mu ngi fi ndax ay ati at la Serigne Touba Xadim Rasul tedd gi. dund fii ba ni mu wàccee liggéey taam bu góor ba sëriñ Serigne Modou Moustapha jël ko yóbbu ko Touba kon euh, Serigne bi gannaaw ba ñu la nuyoo ñu lay jaajëfal di la tatagal nga dellusiwaatal ñu rek ci cosaanal kër gu mag gi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mouhamadou Makhtar Sarr noo ngi lay nuyu bu baax di jël nuyoo bi jëm ci télé bu mag bi di Walfadjri lépp di ko jaarale ci yow. nuyu sëñ ay dara mi nga xam ne moom moom nga àndal euh, nuyu itam ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci penc mi ñëpp muy sëñ Ibrahima Sougou mi ak sëñ Babacar Sylla nuyu sëñ Mourtala Guèye mi nga xam ne ci moom ngeen jaar. waaw comme noonu nga ko waxee euh, njaareem day barab boo xam ne pàkk bii nu nekk euh, jumaa ju tedd ji nekk ci sun gannaaw Serigne Touba moo ko rëdd ci loxol ci tànkul boppam moo ko fondement itam. ci loxoom loolu nag ci histoire yoonu murit ak ci taarixam jenn jumaa rekk la ci jumaa joo xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko rëdd ca tànkam bu tedd ba waaye it loolu tolloo nag 1917 bu ñu demee ba 1918 itam mu fondmaal ko boppam mu tolloo nag la 11 mars 1918 sëriñ bi ci boppam moo moo teg première pierre bi am na ci mag ñi ku ñuy wax sëñ Maxtaar Bintano bokkoon ci taalibe yu mag yi moo yoroon keroog ndabul ciment li ànd ak sëriñ bi mu liggéey ko luy tolloog lépp war a toll ci Bamsasine maanaam juróom-ñeenti at toll woon ak bu ko xoolee ci miladier bi muy 1924 kon 11 euh, mars 1918 la sëñ bi tàmbali liggéey bi rëdd bi nag 1917 la waaye jumaa ji mi ngi àgg 1924 sëriñ bi. ubbi ko ci bisu korite bisu korite la sëriñ Touba ubbi jumaay njaareem ji julli korite la ci njëkk a julli jullit na ci korite julli na ci tabaski kon jumaa joo xam ne sëriñ Touba moo ko fondement liggéey ko ba mu àgg ci kanamam mu jiite ci jaam ñi jiite ci julli soo ko bëggee gis da ngay ñëw ci pàkk bu tedd bii di njaareem li ko waral nag mooy njaareem sëriñ bi dafee def loo xam ne at yoo xam ne da koo defut fenn dafay def fukki at ak juróom bay dugg fukk ak juróom-benneel la fi ñëw moo ko bindal boppam taarixal ko wax ne raamu masiri ila njurbel la daala sa sin law xayanoo shirra maa fi sayri maa ne ñi ngi sàkku samak dox yóbbu ma njaarim raamu masiri ila njurbel la daala sa lasas mooy ci hijriya bi junni ak ñetti téeméer ak fanweer 1330 tolloo 1912 tolloo woon ak weeru tamxarit euh, ca ñaar fukki fan yi ak juróom bisu talaata la sëriñ Touba njëkk a fanaan fii ci njaarim guddi googa tolloo guddik ñaar fukk ak juróom benneel ci résidence ba li ngeen bàyyi ko demoon ngeen fa ci résidence boobu fa lañ ko wàcce woon fële école régionale bi nekkoon foofu Serigne def na fa euh, fukki weer ak ñett yoo xam ne guddi gu jot bu ay deux heures de matin di jot la Serigne Touba di bàyyi ko foofa xam ngeen gis ngeen xur wi ci diggante bi ak ndox mu bari mi rawatina jamono booba nga xam ne àll la bari ndox lool booba dex gi fi nekk mi ngi dund yu nekk dafi daan nekk waaye téewut Serigne pàkk bi teeloon na ko bàyyi xel ndax guddi gi yëpp fii la ko daan passé te booba joxagun ko pàkk bi maanaam bu ay deux heures du matin rek sëriñ bi day bàyyi koo fële ca résidence ba di dox ak tànkam loolu itam mag ñi ñoo ko nettali sëñ Mbàkke Jaxate moo ko moo moo nettali loolu wax ne euh, moom ci boppam dafa nekkoon ak sëriñ bi ci résidence bi ndax baayam euh, euh, sëñ Modou Asta Jaxate moo ko joxoon sëriñ bi mu nekk ak moom foofa bu guddi jotee nag bu sëriñ bi jóge foofa di ñëw fii moom mooy ànd ak moom ŋàbbal ko satala ki sëriñ bi ci doxinam dafa gaawoon booba ci fukki at rek lay toll moom sëñ Mbàkke waaye nee na damay bu sëñ biy dox li muy doon doon mag di dugg ci juróom-benn fukkam man ma toll ci sama fukki at bu sëñ biy dox damay obligé di daw ndax euh, euh, gaawu tànkuk sëñ bi waaye nee na bu ma sëñ bi xawee raw tuuti eh, ci xur wi noonu dex gi dana am ay jëmm yu gàtt yu génn yoo xam ne dañuy ay nee na gannaaw gi la xam ne ay jinne lañ seen karaw yi day dem bay laal suuf nee na ñu koy dëkk seeni loxo naan ko sëñ Mbàkke Jaxate teeg noo may ci satal ak sayxul xadiim gi ngir ñu barkeelu ci waaye nee na man du ma leen faale damay xamte woo jot sëñ bi rek waaw nee na su ma egsee itam suñ egsee it nee na sëriñ bi day daal di jubal si fii nga xam ne moom la ñuy wax kàddu jullikaay muy fii ci penc mi fi la sëriñ bi di jubal si nekk fi def ci away rawlaatam julli fi di fi werd di ñaan bu fajar di bëgg a xotti mu jàll fa fële ci armeel ya am na fa fu ñuy wax daqaar naar sun mbokki naari kajoor yi ñoom ñoom sëñ Ibrahima ñii ba léegi ñoom ña ngi fay denc foofu la sëñ Tuubaa defoon jullikaay bi nga xam ne fa la daan jullee suba daal di wëlbatiku delluwaat ci résidence bi loolu sëñ waa def nag ko fukki weer ak ñett bi biñ ko indee Jurbel fukkeel ba ak ñeenteel ba nag ca weer wa tolloog weeru gàmmu ñeenti fan ci la sanc fii di kër gu mag euh, mu sanc kër gu mag kon Serigne waa gàmmoo la njëkk a def fii gàmmo gi mu fi njëkk a def rakkam di jëwrinam di borom Daarul Muxti Cheikh Ibrahima Fati la Serigne Touba jiiteloo gàmmo ko mu daal di def nag njaarim mu def fii nag sëriñ bi daal di fii rëdd këram gu mag yi ngeen di gis euh, kër gi danañ koy wooyee quartier bi di ko wooyee kër gu mag euh, tubaab yi danañuy wooyee fii madinatu waaye Serigne Touba nag moo wooyee pàkk bi buqaatul mubaaraka Serigne Touba moo tudd pàkk bi ne pàkk bu barkeel la kon pàkk la boo xam ne ku fi teew te yéene barkeelu te fas yéenee barkeelu war ko fee mën a am ndax li yim ci bari na lool waaye fii nag la la tudde buqaatul mubaaraka mu def it fukki at ak juróom màggal gu tedd gii nuy waajal di maa ngi ndokkeel ñëpp. Eh, eh, sëñ eh, sëñ Amadou Maxtaar di leen ndokkeel ci weeru safar wi ñu nekk di ndokkeel mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp màggal gi fii la ko sëriñ Tuubaa njëkk a tàmbale def xam ngeen ne nattu bi di yoonu géej gi yàlla dafa dogal saasu saasu weeru safar ma saan agsi rek bu bisu màggal gi ñëwee nattu bi dañ koy doublé tegaat ko ko loolu sëñ bi jàppoo li mu ñibbisi li mu li mu li mu li mu nekk jolof ba bi mu euh, euh, li mu nekk Daaru Manaan ba bi muy dem gànnaar ba bi mu jógee gànnaar ba ñëw jolof ba ni mu jógee Jurbel lépp at mu ci ne bu disul safar jotee dañ koy tegaat nattu dañ koy yokk ba xaal sa sin nag xaal sa sin ci alonk ak laam ak siin soo ak siin su tooy muy junni ak ñetti téeméer ak fanweer juróom-ñett at moomu bi nattu bi ñëwee ci la ko Seydina Jibril ñëw xamal ko ne nattu bi jeex na bii mooy bi mujj léegi nag nattu bi jeex na sant ci des raddaliyal muhiidu ama alsasi ma dalla an ni qablu ama jees yàlla mi ay al muhiid delloo sil na ma rëmër la ma réeroon xalsas la ma réeroon ca jëy sasin ci xalsasin la ma ko jox kon lan laay def mu ne bu déwénee danaa tàmbalee sant rumtu sukuurallahi sil jalaali min talsasin bi shukri wal alaali danaa saxal sant yàlla ca talsasin muy bu déwénee ci bi lan laay sante mooy jàng alxuraan walaalaal ak bernde bi chikri walaalaali mooy jàngal alxuraan ak bernde loolu la sëñ Tuubaa tàmbulee màggal mu njëkk koo tàmbulee fii ren nag ñu amaat ci geneen tawféex ndax at mi ko sëñ njëkk a tàmbulee defee fii weeru weeru euh, màggal woowu dafa teru dafa teru ci bisu gaaw première safar ba taa tolloo woon ak bisu gaaw ñu màggal màggal gi sëñ Tuubaa njëkk a màggal màggal ga toola woon ak bisu talaata loolu mooy suñ màggalu ren at mi ko sëñ bi xam ma ñu bari sax seetloo guñ ko noonu maanaam dafa eh, ren dafa ñëwaat ca ca njëlbeen ka ca cosaan la waaw at mi ko sëñ tàmbule tàmbulee ba mu ko tàmbulee di ko def wax naa ne safar googu samedi la tàmbule sëñ sa màggal gi mu njëkk a màggal talaata la mooy sun màggalu ren gis nga ne itam weer wi ñu weesu it muy tam xarit gi itam guddi gi fi sëriñ Tuubaa jóge fii dem fanaani Tuubaa tolloo woon ak guddi àllarba muy talaata ca guddi ga guddi ga di guddi àllarba moo dellu si kon nag sañ nañ cee am tawfeex bu baax a baax kon sëñ Tuubaa fii la tàmbulee màggal gi moo tax sëñ musaaka di wax naan njaareem la la njëkk a màggale ca tel sa sin la àggale fii lanu nu Bàmba jommale ca yàlla Ahmadul Mbakki bu ñëwatee na ñëpp teew di tudd yàllay defi géew guddeeg bëccëg bu kenn goow nañ tagg Ahmadul Mbakki daal di wax ni jasbul xulóob muqaddimaat mawaahiboo ki miimiyaat ñu jox ko gaa yu neexi baat ñuy tëgg ahmadul mbakki xam leen ne dee bépp bakkan dana ko mos xamul ku gën noo mën a mel mu def sa gan bu gane ganee ahmadul mbakki bu leen di fàtte seen boroom bu leen di tooñ seeni moroom lu waay di bay lekk cereem bay leen ci ahmadul mbakki màggal gi ak jumaa ji daal laay woote yéen waa Sénégal kon bu la neexoon man man ngaa def istiaara ne màggal gi ak université bi daal laay woote yéen waa Sénégal buur leen te wuy si kuy rijaal na wuy si Ahmadul Mbacké kon loolu mooy cosaanul bés bi sëñ Ahmadou. bërëb bi euh, lan moo fi jot a xew ci Jurbel lan nga ñu ci mën a def wax nañu ne bagage yu sëriñ bi lu bëri fii la ne. waaw njarim yi fi xew kenn laatu xaddu wala tuusa kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim ndax day day sëriñ bi dafay def at yu defut fenn wax naa la ne la 1912 euh, la fi ñëw 13 la sañ ci kër gu mag xoolal xew-xew ganeeg àdduna ak Cheikh Abdoul jàmbaar jooju en 1914 te déwén sa la Cheikh Abdoul Ahad gane àdduna ci biir kër gi sëriñ Tuubaa wax mag ñi ne leen gan gii fi gane àdduna ku mën turam wi ñu jéggal la man tur wi rek day annoncé ak texe muy Abdul Ahad tur woowu koo déggati ñu ko koy wooye moom lañ ko tuddi moo ko njëkk a tudd ci addu loolu fii la xewe loolu mooy tolloog 1914 tolloo woon ak weeru korite ñaar fukki fan yi ak ñett ñu dem bañ jógee ca korite ga rek at ma jàll ñu dugg mu xaram muy njëlbeenu at mi di tam xarit ñu am ca ñetti fan sëñ Abdou Khadir gane adduna ca Daaru Alimil Xabir waaye fii la fekk sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fii la yónnee woolu borom Daaru Moti ba mu ñëw mu ne ko tey gan gii nga yotiw tur boo jógee fii ba ba ngay dem ak booy dellu siwaat koo fi taseel ñu jéggal la loolu fii la xewe woon waaye ñu dem ñu jàll ba tamxarit ga jàllee ci même année boobu ñu dem ci weeru suul xiyandati moom la ñuy wax diggiw tabaski ca fukki fan yi ak ñeent nga xam ne weer wi day day day mat mooy mooy fan yi weer wi mat sëkk fukki fan yi ak ñeent gis nga euh, zul qandati weeru diggu tabaski dafa bokk ci weer yi nga xam ne euh, lasxurul xurum la muy weer yi ñu wormaal nga xam ne ca jaahiliya sax kenn du ci xeex nit ñi dañ ci am wóolu ci seen alal ak seen deret weer woowu ci la sëriñ Saalihu gane àdduna ci dëkk bi kon si amoon Maxtaar li nga laaj njaarim yi fi xew xoolal ñoo ñu fi gën a àdduna ba ñu demee ba xel Helsinki 1917 wax naa la 1914 wax la 1915 yi ci xew 14 nee naa la mooy Sëñ Abdu Lahat mooy Sëñ Abdu Xaadir mooy Sëñ Abdu Lahat njëlbeenu 15 mooy Sëñ Abdu Xaadir ak Sëñ Saaliw fii la fii la xewee Sëñ Abdu Xaadir Daaru Alim la gën a àdduna waaye fii la Sëñ Tuubaa waxee maam Thierno tur bi fii la ko waxee it mbootum gan gi xamal ko ni ko yow mi koy tudd it booy dem ak booy dikk koo fi taseel ñu jéggal Serigne Saliou it fii la gënee àdduna ci biñ demee ba 1917 Abou Madiana Mbacke Serigne Chouaib xoola jàmbaar jooju li mu liggéeyal alxuraan yarekat bu mag boobu ak li mu defar fii la gënee àdduna bi ñu euh, euh, demee Serigne Abdou Samad fii la gënee àdduna kon naka noonu kon fii njëriñ day benn pakk waaye it mu bari nag yoo xam ne xew na fi ci jagle yu fi Sëriñ Tuubaa am diggam ak boroomam Sëriñ Tuubaa wax na ne rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama gane na ko fii fukki fan ak juróom yonent bi saa sallam nekk na ko ci biir kër gi loolu nag bu la neexee nga wër adduna ba mu daj ba xam da nga ko déggaat ci geneen kër kër gu yonent bi def fukki at ak juróom fukki fan ak juróom Sëriñ Tuubaa ne danaa ko màggale fukki at ak juróom fukki fan ak juróom kon benn fan bu ne at la koy màggale fii la sëñ Tuubaa woo sëñ Aliou jox ko ak kayit ca la ko wax ne ko dàkk ko te bu ko xool maanaam na ko cadré waaye bul xool liñ bind ci biir mu ne ko dàkk bu ko xool kayit woowu ginnaaw gi mag ñi am na luñ ñu ci wan gis nañ ci dara lu cee bokk sëñ baa ngi cey wax naan ko yaa aliyu xuruji min dun yaa xaama wom sa sin sëñ Tuubaa waxe na ci at mi muy génn adduna ak buy génn adduna fii fii mag ñi fi nekkoon Cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Salaam moo mooy taawub maam Cheikh mi nga xam ne moo njëkk a doon xalifa Daaru gannaaw sëñ gaawaan ci biir kër gii la yaroo sëñ Mouhamadul Mamoun boo ko masaa wax kër gi danaa la cey googu kër foofa ab xaalis di suule xam naa ko waaw ndax sëñ Tuubaa xaalis bi mu daan suul sëñ Mouhamadul Mamoun la ko daan jox moo ko daan suul waaw kon kër gi maanaam bu ñu waxtaanee njariñ moom. dafa am ay jagle yoo xam ne benn pàkk fekku ko ci waaw sëñ Tuubaa nag wax naa ne la màggal gi fii la ko njëkk a waaye wax na ne gàmmu it li mu bëggoon nee na gàmmu moom Mbàkke Bawal la ko tàmbulee ah yeytu moo ko dateel boppam moo ko bindal boppam ah yeytu mawlidan bi min asasi waaye waxaadali fawqal naa fii talsasi nee na li mu bëggoon ci gàmmu njaarim la ko amee tàmbule na gàmmu Mbàkke Bawal booba demagut ci géej gi waaye nee na nag li mu bëgg ci gàmmu dëgg-dëgg njaarim la ko amee kon loolu it mën nañu koo dolliwaat ci yi nga xam ne xew na njaarim ci e, ci lenn rek ci li nga xam ne teew na nu mën koo indi waaye nañ xam ne barab la boo xam ne itam dafa feesoon dell ak ay daaray alquran dari kamin mu ngi nii boo xoolee néeg bi mu gane génne adduna nga xam ne wax na ne ñamu àjjana fi la ko njëkk a mose néeg bi mi ngi fii mooy barab bi nga xam ne ci la sëñ delloo ci boroomam moo nekk ñi ci seen wet naka noonu it daari kaamin gi it moo ko rëddal boppam xat mu bi mujj joxe xat mu bi mujj joxe sëñ ma jëmb si la sëñ ma jëmb si la la ko jox muy tey siirul xasiir digal ko ngir mu koy jàng ñu koy ñu koy tëje njaarim kon mën na noo wax ni 1912 bi sëñ bi ñëwee ba 1913 bi mu sañcee kër gu mag ak léegi mooy dëkk boo xam ne waxtu julli wuñ julli rek boole nañ ko kaamilum alxuraan waaw waxtu wuñ julli rek sëñ waa daal du julli genn waxtu gu àndut ak kaamin ab kaamin buñ noppi buñ xatma 1912 ba tey ji ñu ngi ba tey ji waa daara ji ñu ngi jàng kaamin bi loolu nag moo tax mu sañ bind wax ne rafaanil quraanu rafxan xafada man saahu taqaddumi fan xafada naka noonu it soo demee ci armeel yi itam moo moo moo ko rëddal boppam waaw wax ne armeel yi moo ko armeel yi madinatul munawwara ñoo bokk wax na ne kàddam gi fekk booba am na ci kilifa yi sëñ Balla Fally Dieng eh, seen dëkk boobee ñuy wax ndogal mu ne ko Balla Fally waaw yéen seen dëkk boobu ngeen di wax ndogal moom lu ngeen fa dogal sëñ Balla Fall ni ko ah Mbàkke loolu de neexut a wax nag neexut neexut a wax de ndax dañ daan dogal dogali nit ñi rek ku ñëpp doole rek jëflanteeg yow jël la nga yor mu ne ko ah foofa de lañ fa dogal wute nag liñ dogal fii moom fii ci njariñ wute naag moom fii de moom dogal naa fi sama jullikaay bii kuñ fi jullee bu ñu la dencee ci sama armeel lii bu dee suba la ajjana ngay yendu bu dee ngoon la ajjana ngay fanaan loolu loolu lañ dogal fii moom kon armée lii moo ko rëdd naka noonu it samp fi ay kilifa yu yu yu mag waaw euh, man mii sama turandoo sama kilifa sëriñ Mor Mbaye Cissé mi nga xam ne Sëñ Blaat mii xalifaam noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko euh, jàngu daara ja mi ngi nii daaraam ji nga xam ne mooy daari Sëñ Mor Mbaye Cissé moo jox ndigal maam Jaasi Cissé mii waajuru Sëñ ngir mu fondé daara jooju Sëñ Ibrahima mii ci daara jooju la génne fa la doon jànge daara jooju. defar nañu bari daara jooju di kër sëñ Mour mbay see xam naa sëñ ay dara mii ci nga àndal mu nuyu filma jaar na ca daara ja xam na ko waaye daara jooju nag ñu xam ne daara euh, moom itam ci ndigalu sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa moo digle woon ñu sanc ñu def daara jooju di fi jàngale alxuraan mu joxoon ko ndigal maam Ndiaase mu yor ko ba bi mu fi jógee doomam sëriñ Mor Mbaye Cissé wutu ko daari sëñ Mor Mbaye Cissé bokk ci symbole yu mag yi ci nekk njaareem sëñ Tuubaa fondé ko fi samp ko fi doy na ci rek kii fi nekk di sëriñ Tuubaa di Cheikh Mamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg te wér ca daara joojee la tàmbalee jàngum alquran jar xam nga sëñ Muntaqa moom soo ko xasee ba indi rek eh, waaw doy na ci doy na ci exemplaire waaw eh, daara jooju ba tey jii ña nga fay jàng alxuraan di ko fa mokkal di ko bind sëriñ Abdul Ahad Cissé mooy xalifaam noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral sama kilifa di ñaanal jëwriñu daara yëpp itam sëñ Mbay Ngiraan mu sëñ Mor Mbay Seen mi nga xam ne mooy sama waajur noo ngi koy ñaanal ca jëwriñu daara jala suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal sëriñ Moustapha Guèye di ko ñaanal njabootu sëñ Malick Dieng ak ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci alxuraan muy daara yi fi nekk yëpp nga xam ne bu ma tuddee sëñ Mor rek mooy cosaanul daara yi yooyu yëpp waaye njëriñ barab la woon boo xam ne dafa feesoon dell ak daara yi fi mu ne sëñ Amadou maanaam euh, mbooleem mbooleem seex yi mbooleem seex yi ku eh, ku borom darul moxti maam Thierno ku dut eh, ku dut maam Mor Diarra ku dut maam Mor Diarra doo maam Thierno am nga amoon nga kër njariñ muy seexu yoonu murit bépp ak bokki sëñ Tuubaa yi bokk yi ak seex si ku ci nekk amoon nga kër fii seex yi daara yi dañu fa yóbbu woon donga yi ñu fay liggéey waaye jëmmi consommé moom ak yi ñuy jëfandikoo yëpp njaareem lañ ko daan defe waaw bu ma bu ma duggee ci bayti ndax euh, sëñ sëñ euh, bu dee sëñ ma sàmba këram a ngi fi woon maam Thierno nag moom sëñ Tuubaa ci biir kër gii la ko daan dalal moom maam Mor Jaara ñoom ñaar rek ñoo fi amutoon kër waaye seex sëpp sëñ saa ceen Cheikh Ibrahima Fall gis nga sëñ Tuubaa dana ak mbooloo da ngay féete ne fa demoon ngeen fa sëñ Babacar ngi fii sëñ Mor Absa Lo mi ngi fii nga xam ne kon seex si euh, bu ñu bu bu ñu bu ñu bu ñu xoolee euh, euh, waa kër sëñ Jéeri waa daan sugu seen barab ba yaa ngi fii bu ñu xoolee mboolem seex yoonu murid yëpp dañ fee fi lañ nekkoon bayti rasuul itam bi sëñ jógee eh, eh, Jolof di ñëw njaareem muy bayti gi nga doon laaj léegi bi mu agsee ba daaru xalimil xabir muy ndaam ña ngay màggal guddi gam fa fanaan la fa sëñ Tuubaa wàcc lenn ci ay bagaasam bagaas yi ci des nag moom la ëndaale fii bi mu ñëwee nag ñu dugal ko fii mooy bayti rasul boo fa demee da nga fa fekk gaali sëñ yi gaalam gu ci nekk benn njàpp rek lay am yow mii boo ci bëggoon a dugal sa loxo sa loxo du ci xaj ndax sëñ bi moo lay xamal ni sëñ Tuubaa eh, li ko sëñ Musaa Ka ne ko nuru nuru nga nit ñi ay ay ay defin waaye nuru nga yàlla ay jëfin maanaam ci ci insaaniya ci cadre nit waaye dafa dugg ci boromam ba des ak boromam looloo tax sax mu sañ wax ne du ma faatu kafaaniyal baax yi mamata sarmada wa bi baqa suuru yasuru ahmada yàlla dafa dul jóg mukk mu tabbi ci biir dunduk suñ borom gi nag ba seeci bi mu jeexee ci yàlla nag te yàlla di lu des moo indi desug sëñ Tuubaa gi ñu bari buñ koy wax da mën a dugg seen bopp xëy na bu bu bu bu temps bi yaatu woon tuuti danaa ko mën a démontrer ba mu mën a dugg bu baax ci bopp yi ñi bañ mën xam li ma bëgg a wax bu baax waaye loolu moom ñi xam dara ci tasawuf loolu du leen jaaxal danañ xam li ma liñ bëgg a wax loolu nag foo gaalam yooyu yëpp ñi ngi ñi ñi ngi fii yenn gaal yi boo demee bayti gee ca Daru Xuddus maa nga fa Cheikh Mamadou Moustapha mi ko njëkk a wuutu moo jëloon bagage yooyu ci Daaru Manaan indi ko foofa mooy ya fa nekk euh, bagage yi nga xam ne moom la indaale woon njëriñ bagage yëpp a ngi fi euh, loolu foofu la ñuy wax bayti jàkk jii ngay gis ci biir ngay jàkkaarloog moom fukki at ak juróom yëpp fi la ko sëñ Tuubaa jiite waxtu yu juróom fukki at ak juróom yëpp soo demee def nañ benn vitre boo xam ne euh, suuf sa sëñ Aliou ñoo ngi koy ñaanal bu baax moo ko liggéey moo liggéey vitre boobu vitre boobu mooy fi nga xam ne fi la sëñ Tuubaa daan toog di xaar waxtu nga xam ne jëmmi suuf sa ba tey karo wuñ ko sémanté wuñ ko defuñ ko dara dañ koo bàyyi noonu wormaal ko sëriñ si mbakki Mbacké Gaynde ma moo doon liggéeyaat jàkka ji moo xalaatoon loolu ngir mu am ba tey ji fi mu ne boo demee da nga teg sa bët ci suuf soo xam ne Sayxul Xadim toogoon na ndax ay yoon waxtu julli wu ne fa lay toog di xaar diggante noonu xam nga moom ni meloon ci julli ak ni meloon ci waxtu waaw sëriñ Bachirou mi ngi ciy nettali lu yéeme nee na nekk na fii di ataaya bi mu tollee ci naanaa mu mu mu lu naanaa fekk naanaa ji jeex ñu indil ko naanaa ju wow juñ weer ba mu wow ne biñ ko indee léppam xekkam la woon moom sëñ Tuubaa ci jàngale la mu mu mu téye naanaa ju wow ji xool ki ko ko indil ne ko ñun de duñ jëfandikoo seeli naana duñ jëfandikoo seeli diine daal di muñ ñu ne tekk mu ne seeli naanaa de xanaa xam ngeen ko ñu ne ko ah waaw Mbàkke seeli naanaa de xanaa mooy naanaa ji woo mu ne seeli diine nag mu ne ko ah boo ci dimbali woon de nu jël mu ne mooy njàppum tisbaar nga koy jullee takkusaan moom waxtu wu ne da ko daan jàpp li mu daan waajee waxtu nag ak ak wàccaay wi ak julli ji yëpp ci jàkka ji la ko daan def diiru fukki at ak juróom moo tax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma sëtam bu màgg bu tedd boobu liggéeyaat fii nga xam ne bu ñu tuddee kër gi faw ñu tudd Cheikh Mamadou Moustapha waaye faw ñu tudd sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké waaye faw ñu tudd sëriñ Bachirou nag ndax sëriñ Bachirou it dafa delloo si waat njaarim dundalaat ko waaw eh, ba ba ba ba ba nga xam ne bi sëriñ Mouhamadou Moustapha di di di di di di di wax waa kër sëñ Tuubaa yi ñi tànn war a dëkk ci kër gi sëriñ Bachirou moo ne sëñ Moussa man dëkk ak yow moo ma gënal lu ma am dëkk ci kër man man man moom buñ ma dëkkal fa faneen naa dëkk njaareem rek dëkk ak yow kër gi moo tax yàlla dogal bi ko sëñ sëñ Moussa di jox waa wet gi mu koy jox néeg bi sëriñ bi delloo ci boromam bokk ci biir liñ jox sëriñ Bachirou waaw kon sëñ Bachirou yi dundalaat dëkk bi nag waaw dundalaat ko ci anam yëpp fi la daan defee koor gis nga mbaaru fulku mi ngi ci biir nga xam ne quraan yëpp bi nga xam ne sëriñ Bachir moo ko dajale waaw bokkut ak fulkul mashhun bi fi sëriñ bi bàyyi mooy muqayyada muqayyadatun bi ayatil quraaniyya waaw bi nga xam ne dañ koo tënki ay laayee alquran sëriñ Tuubaa euh, ci ci ci euh, ci xasida googu xasida xasida yi ci nekk yëpp ci ci ci quraaniyya bi aayee alquran lañ ko tënke moom la ñuy jàng euh, weeru koor wu jot mooy daaray fulkul mashhun moom it mi ngi fi kon yaakaar naa danañ danañ danañ mën a taxaw foofu ndax njaarim moom yi fi nekk yëpp suñ ko doon limite du àgg waaw gaal gii ngeen gis seen gannaaw mooy gaalug ndigal gi ñu doon wax mooy gaal gële waaw gaal googu la ñuy wooyee gaalug ndigal sëriñ bi moo ci joxe woon ndigal ni lépp loo xamante ni nit mi ngi ko ciy def mi la nit da koo teg ci loxoom mooy jamono yi ñuy def liggéey bi waaw kon kon mooy moom waaw kon kon ñu taxaw foofu jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ bi euh, leer na nañ kontaan nañ xool yëpp tooy na kon gis ngeen njaareem li fi jot a xew ak sëriñ bi ku tedd gi Xaadim Rasuul ay at yi fi def donc lii lañ leen loon fii ci kër gu mag ci wàccaayu màggalu ko édition 2020 ñu jàpp ko talaata juróom-benni fan ci weeru octobre ci weeru tubaab bi atum 2020 ñuy jaajëfal ñëpp di ñaan